donc tey ñu ñëwoon fii Youssou Mbargane ngir programme bi nga xamante ne moom la ñu déroulé euh, mois bi ñu génn donc muy programme boo xamante ne euh, ñu ngi ko jëmal ci suñu hôpital yi donc euh, dañ siy dox ngir pour la salubrité maanaam dañuy dox si ngir setub hôpital yi donc ñu am benn benn cahier de charge boo xamante ne ñu ngi ko mënee feex six ans si kanam donc ñu ñëw tàmbalee Youssou Mbargane tey donc nekk xam na ne Youssou Mbargane hôpital la boo xam ne dafa boot hôpital yi nekk Tëngéej yëpp donc moo tax ñu bëgg xeex euh, dimbali leen si li nga xamante ne moom moo leen gën a soxal muy euh, li nga xamante ne moom moo leen di encombré muy salubrité bi donc ci loolu donc ñu ñu xam ne association bi ngir dimbali suñu hôpital yi te yi su mbargaan hôpital yi nekk si euh, maanaam centre de santé yi nga xamante ne muy si département rufiski bi yëpp moom moo ko tax a jub d' ailleurs bu ñu paree fii yusu mbargaan si lancement bi tey dafa nekk journée de lancement boo xamante ne dañ koy def di ci oo ñëpp ñu xam ne lii nii du lu ndaw parce que nek da ku fekkante da nga juk pour topoto say hôpital yaakar na ne ay moyens mo top topoto te ku nek xamna ne ñi ni dañ def don de soir dañ ñew pour japp ci ken joxu len ñu lek ken joxu len nan gis nga len nele fa la ñu nek ñi ngi liggey waccaguñu donc ñu xamne li dañ ko créer aussi euh, pour pour pour pour pour pour année bi yep du gis mbargan la ñam buñ paré fi ñu ngi dem centre de santé bu geej buñ paré centre de santé geej bép poste de santé bo xamantene mu ngi nek te geej juste pour dire que nous nous allons mettre le focus en 2022 sur l'hygiène l'assainissement la propreté déjà un chef d'hygiène euh, a été nommé il est c'est le monsieur là derrière il s'occupe il a mis en place un plan d'hygiène quinquennal pour les cinq ans à venir qui entre dans notre plan d'établissement projet on a on est en train d'élaborer un projet d'établissement qui qui détermine notre vision là où on voulait aller dans les cinq ans à venir et dans ce plan là la vision de l'hygiène, la sécurité, la propreté des locaux, ils occupent une place très pondérante. Donc, en fait, c'est ce qui manque un peu à l'hygiène, la sécurité. le réseau d'assainissement est en train d'être fait. On va bientôt, dans deux mois maximum, abandonner l'ancien réseau pour nous occuper du nouveau réseau. Ils ont déjà creusé 126 regards, vous pouvez aller prendre des photos. Ils sont en train d'implanter les tuyaux. Pour, après, on va abandonner l'ancien réseau pour nous occuper du, nouveau réseau. C'est ma vision, moi. Je suis hôpital bi ñu ne hôpital principal lancé appel partenaires au développement. am nous lu mu bâtiment bu ngand ngeen gis de taille ñu yàgg dem Europe xam euh, euh, service d'accueil des gens humains ni ngeen fay gis dégagé plus de 100 millions de francs pour ñu avant la fin de l'année donc ñu ngi lancé yeneen compagnie yi entreprise yu mag yi fi ne aussi ñoo jàpp ci liggéey bi comme ni ko jeunes yi defee loolu daal mooy suñu wax di ñaan nag population bi ñu kon ne respecté mesures barrières nañ takk masque nañ res raxas loxo ci solution hydroalcoolique yi nañu nañu dem vacciner ñu vacciner ko nañ ko def bi ñu ko defee leeg mbas mi abal ñu